comme carrapide.com buzz.sn yaa ngi ci biir tey dañ leen indil benn artiste boo xamante bi bii gëjoon nañ koo gis ndeysaan nee naa man moom man moom xaw ma ko quoi mais tey moom lépp na leen incha allah il se nomme tout simplement Zalsek man man mën naa tonton Zalsek sax laa wax <laughs> tur moom neex na waaye sant bi moo xaw a yàq ndax Seck <laughs> tonton Zal dama lay bàyyi nga présenté wu. waaw maa ngi avant euh, tout maa ngi nuyu euh, mbokki internet yëpp yi nga xamante ne ni ñu ngi déglu. rapide euh, net mhm. donc euh, man euh, zalsek la laa et nekk le bu nekk le bu nekk Yoff <coughs> et ça fait onze ans que ma nekk Canada et nous bëri xam naa ne xam jeunes yu bëri danañu nous mbir ci kuy Zal Seck parce que man mangi ngi commencé Yoff alors nous en quatre-vingt 3 ak étoile 2000 ci la ñu bëri ñu xamee ay bubu ngari et puis en 92 ma commencé sama carrière solo donc euh, pour ñi xamul ñi xamanté ñu xam Zal Seck riiru mbëggeel Zal Seck euh, muñ Mali Sada et donc euh, je pense que ci biir émission bi dinañ am occasion gëna xam kan mooy Zal ci lool ok Zal Seck sank ci biir wax nee ma commencé woon nga fii musique nga jékki-jékki dem extérieur def fa 11 ans ci biir 11 ans yooyu bi nga ñëwaatee Sénégal naka nga gisee musique sénégalaise avancé na wala fi mu nekkoon la nekk wala dafa en arrière. waaw xam nga euh, li ma xamante ni moom laa remarqué par rapport ak euh, bi ma fi jógee ak bi ma ñëwee que y a beaucoup beaucoup de musiciens musiciens yi bari nañu mais euh, li manqué moom mooy njàngum gumba mi daf fi bëri donc il faut que quand même ñu am ay école yoo xamante ni dinañ mën a former jeunes yi ba ñu mën a mën a exporter musique bi ci nga surtout les instrumentistes aussi waykat yi aussi ça prend vraiment des euh, des techniques des des des techniques yoo xamante ne ni dina leen gën a gën a gën a jox sur le plan international parce que la musique est universelle mais euh, je vois que euh, ci époque bi nga lañ peut-être am na xam jamono ji mais il faut que ñuy xoolaat bu baax euh, musique parce que euh, pour exporter ça prend beaucoup de travail et ça prend beaucoup de connaissances. dama dégg bu Zal mbalax est-ce que vous nga expliquer lan mooy mbalax avant avant musique dafa musique boo trop yéexul trop donc de 7 à 77 ans mënoon nañu ko fecc en plus ma jëloon nag benn morceau boo xamante ne nii mais j'étais man maa nekk musicien premier musicien bu ko defoon jël morceau comme benn populaire waaye jël morceau sont de jël morceau baabu ma jël boole ko def ko benn morceau tuddee ko mbalax daal donc je suis le premier musicien qui a fait maa kon man war na yeah, yeah, yeah. yeah. xol bi neex mu kon man war na jaamoo dama doon def ay recherche dégg sa benn son nga ci wax naan eh, si juróom ñaari at yi nga ci ngay faatu mën ngaa xam bés bi nga juddoo waaye bis bi ngay dee daf lay réer est ce que mën nga ñoo expliquer exactement la ban message nga doon jàllale foofu mais loolu mooy àdduna parce que dara jaru fi dara xam nga bu ma ne ci biir juróom-ñaari fan yi nga juddoo te ci ngay faatoo mooy ne rek ba nga juddoo nga dellu ba nga ne but ci àdduna judd xamal ne dee dana ñëw donc ci diggante boobu lu ko fi jaar def lu baax jàppalante dimbalante comprendrante donc ci biir loolu rek loolu ci diggante boobu lépp ngi ci biir ci biir juróom-ñaari fan yi nga juddoo te ci ngay faatu ngaa xam bés bi ngay juddoo waaye bés bi ngay faatu da lay ba tax na def fi lu baax mbaa wax ko fi daf koo jarul def fi lu bon mbaa wax ko fi daf koo jarul donc message bi moom mooy rek ñu delloo suñu xel ci yàlla te xam lépp loo fi am ak loo fi man day jeex. sa xel mi dem yaay soo bañee ñaaw jaamas ci sa biir naw bu ñu ñëwaatee ci son yi ci ginnaaw dafa mel ni amoon na benn son bu tuddoon maanu. waaw maanu ma yàkkamti yàqule. waaw boobu maa ngi si dégg nga ci joxe ay message comme ay comme maa ngi la dégg nga ni euh, mara naan bu la taxee naan petit. ku mar tax naan petit bu robinet ne ubbee nga rus. waaw ñu yàkkamti rek. waaw léegi euh, est-ce nga ñoo expliquer yaw message yi nga daan joxe par rapport ak musique tay bi. moom laa lay expliquer léegi xam nga bu fekkente ni da nekk un chanteur wala muy taasukat wala muy quoi que ce soit. bu fekkente ne ngay jël micro di way wala ngay jël dem ci studio di enregistré boo waxul lu jëriñ nit ki rek yàq nga sa wax c'est tout juste commercial ay affaire rythme jamono la six mois mu jeex mais bu fekkente ne bi ngay way wala ngay wax lu jëriñ nit ñi génération bu ñëw ku ko déglu mën na ci gis boppam donc loolu c'est très important man ku ma jege j'ai formé beaucoup de musiciens ici au Sénégal ñoom ñëpp macha allah ñu ngi ci grand groupe yi ñii ngi bitim réew sama kër loolu la woon atelier la woon mais ku jóge ci man loolu laa lay jox comme outil il faut que ngay wax loo xamante ni day jariñ nit ki soo ko waxul rek di Ndiaga mbay di wax ne way bu diglewul yeetewul ay naxaate la ma jox benn anecdote bu ndaw am na benn way boo xamante nii jooyu xol laa ko tudde

Euh, sa benn ci soirée bi am ku ñew ma koy joué mu ñew kott ma jooy ne ci biir lolu daf ci gis bopam ndax way bob moo tax mu gaday donc euh, ba mu gàddaayee Banjul ci le demee nag commencé di liggéey bi mu dellusee ci lañ ko tek place am way bi nag dal di koy donc lolu gis nga ni muy défaré ni muy bokk ci nit donc c'est très important. est-ce que mën nañoo xam exact.

ak sama expérience bi nga xamante ni moom laa am moom laa développé foofu et du expérience bu ndaw j'ai beaucoup de bagages parce que ça fait 30 ans que may musique li may def Sénégal kenn du ko def li may joué yëpp kenn du ko joué mais euh, loolu lu ma indil moo ma indil benn apport boo xamante ne nii bu mu fu ma mënti dem ci àdduna bi damay bokk. ñii musiciens yi nga gis maa ngi di jox ni ñuy joué maa ngi di jox samay morceau donc loolu. doole la boo xamante ne nii ñu bari bu ñu xawee bàyyi lu bari parce que dañuy dépendre ci ay nit te ñooñu tamit avant na ñu nañu occuper mën nañu def ba décourager leen. ci ñooñu laay ñëwaat. Hmm. parce que gis naa bi nga nga ay tubaab ku nekk seex benn benn. instrument instrument boobu ñoom naka lañ def ko mémoriser li ñu war a tëgg parce que gis naa ñu tëgg fi ay mborexe mborexe ay ay ay jaxaguñ taj loolu noonu yaa lañ koy jàngal wala. waaw parce que mooy li ma la wax rek ñoom. xam nga ñoom dañu am harmonie dañ ko jàng mhm. musique léegi nag man ma indi nag apporter leen li nga xamante mooy fii alors jox leen ko buñ ko mën leen ko joxee ñu harmoniser ko musicalement mais dafay nekk mix culturel bu jaar yoon mhm. loolu moom mooy secret bi léegi Zal moom dafa ñëw pour toog te Sénégal kon ni musique am wala day dellu. non dama ñëw dama ñëw rek pour def sama musique damay dellu Canada. Hmm. parce que chaque année damay indi ay atal ay ay ay tubaab fii. Hmm. chaque année ma def ay euh, workshop damay joxe ay cours Canada. Hmm. ay cours percussion dama leen di indi fii mu leen indee alors ñu def ay ateliers et puis mu nekk du intégré dëkk bi mën ci jariñu ñëpp mën ci jariñu jaaykat bi mën ci jariñu

ay outils yoo xamante ne nii dana jariñ musiciens sénégalais yi parce que bariwu fi aussi euh, bon tu vois projet yi sama groupe bi ma indi fii. Mhm. ñoom it dañuy ñëw après ñu daal di développer ay affaires yóbbu fële dem alors euh, partager ko ak ay nit. Mhm. donc am na yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne nii xam nga euh, ci loxo yàlla lañ koy teg parce que xam nga jaam ak pexeem yàlla ak dogalam. donc euh, dañuy prévoir rek mais am na yoo xamante ne ni bus jotee rek après ma woowaat leen ngeen ñëw mhm. ñu toog toj ci projet yooyu. waaw waaw <laughs>